2000 2001 2002 la ñu commencé lu bari di wax parce que mën naa wax ne dafa nekkoon ci opposition dafa nekkoon opposant moom ci biir parti bi ba créer benn structure bu tudd wàccoo ak alternance waroon nañu mën a tàggoo bi ñu génnee pouvoir moom mu ñëw ci biir pouvoir mais boobu la ñu gën a la sunuy sunu relation gën a dëgër mu ñëw seet si ma pour mu seet naka la war a doxale ak lan laa xalaat ne noonu la war a def ba mu dox ma am lu ma ko tere am lu ma ko sant am lu ñu déggoo mënuma ko fii mais daal waxtaan nañu waxtaan bu bare bari bari ma jox ko ay tegtal defe naa ne tegtal yooyu ma waxtaan ak moom ak li nga xam ne moom laa defoon ak moom tax na lu bari ñu ñu bari xamuñu ko mais dem na ci ba nga xamee ne bi mu nekkee président du groupe defe naa sax defu fa at parce que moom comme wax na ko dañ koy waxaat décidé woon na pour génn ci président groupe parlementaire bi. alors Moustapha dafa nekk nit koo xam ne kii ci politique. ci politique léegi li mu mën ñu ko mën bariwul nitu politik très souvent ci surtout ñi nga nekkal ci biir assemblée bi foofu ci li ngeen war a def yenn saa yi nga waxtaan ak nit ci timis ne dangeen di def nangam boo leen tàggoo ci gee mu jël leneen def leneen wax leneen dafa bari ñu dul wax li ñu gëm. dañuy àbb yëfu jàmar ngëm-ngëmu jàmbur bëgg ci sukkandiku euh, loolu am na ay député yoo xam ne am nañu taxawaay boobu te ci seen camp bi ñoom ñaar ñoo ci xawa nuroo Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo nuroo nañ ci li ñu gëm loolu lañ lay wax bu ñu tënkoo yow ci dara ne lii lañuy def dangay jàpp ne boo demee tëddal nelaw loolu la ñuy def buñ ci dee génn dañ la ko wax suma benn mag bu tudd Ousmane seen Blay nee na ma dëgg bi dëgg bi ngay wax dee ko suukar bañ ko kaani comme dëgg bi danga nga dégg danga bëgg nit ñi jot ci lekk ko mu rees boo ko kaanee dafay naqaree lekk suma benn mag bu tudd Ousmane seen Blay moo ma wax loolu yàggul mu ne ma suukar dëgg bi dee ko suukar mais Moustapha dafa dëgg bi ni mu ñëwee noonu la la koy joxe mais aussi nit ko xe nit ko bëgg xeex la dafa bëgg xeex dafa dafa dafa affectionné xeex te xeex yenn saa yi dafa am app xeex yenn saa yi dañ koy tëral dañ koy renvoyer am na ay xeex yoo xam ne dañ koy renvoyer mais Moustapha moom mën a renvoyer xeex. xeexam du jeex da koy xeex ba mu jeex.